coronavirus bi mi ngi wéy di law fii ci biir réew mi di indi tiitaange tiitaange tamit am na rawatina sax njàqare ci làmb ji ndaxte làmb ji nga xamante ni dañu ko tëjoon daaw boo moytuwul ca tëjaat la ñu jëm loolu ab laaj rek la laaj boobu la ko rek mooy bi ñu gisee ne jàngoro bi mi ngi gën di law kaa yi di yokk tey yemook ñaar fukki fan 902 cas juróom-ñeenti téeméer ak ñaar waa léegi dañuy laaj li nga xam ni moom mooy mbumbaay yi nga xam nañ ne nañu ko wàññi ba tabaski bi sax nit ñi ñu bëri naan nañu ku nekk na toog sa kër kon lii di combat bombar Balla balagay numéro 2 Siteu Papa Sow boo moytu daal ca ndox ma la jëm ñaanu ñu ko yàlla ndaxte bu ñu ko ajee dina doon loo xam lu doy waar la rawatina dina metti lool ci site Papa Sow ak i tamit seen promoteur bi di pap Abdou Fall ndaxte combat bi ñu taxawal daaw jéeg daaw mu waroon am weeru avril ñu aj ko ba tey jilee ñu war ko mën a bëre ba fi mu nekk nii si njàkkare la ñu nekk kon boo komba bu ñu ko ajee dina doon lu metti lool ci mbër yeeg promoteur bi rawatina mbër yi nga xamante ni seen koñ seen i jegeñaal ñu ngi koy waaj bu baax ak promotion buñ ci def fan yii yëpp ngir daal di gën a fësal bi day combat Balla Gaye bombax Bombardier moom itamit euh, Gaston Mbengue war ko tëgg le 31 juillet bii ñuy dëgmal bu ñu tabaskee ba noppi ay fan rek boobu moytu tamit boobu géej la jëm lu tax muy tàbbi géej ndaxte Gaston production moom sax dafa jot a annulé lii di soirée de gala bi ñu waroon a amal fële nga xamante moom mooy ca teeru bi le 25 juillet bi ñu dëgmal waaye beneen combat boobu mooy tamit géej la jëm booy Niang 2 tafaatin Tine production taxawal ko mu war a am juróom-ñetti fan ci weeru août maanaam 8 août ba tax na jamono ji ñu ngi koy waajal bu baax a baax a baax ñetti combat yëpp daa mel ni kii ñaar yu ci njëkk commencé nañu jaay billet yi. muy B52 bu Mbour ak Balla Gaye 2 Siteu Papa Sow ci pay per bi ñu ngi ciy def lu ñu mën ngir rek ñu daal di mën a fësal bile combat waaye daal njàqare am na ci mbër yeeg ak promoteurs yi rawatina tamit ñi nga xam ñoom ñooy amateurs yi waaye bu fekkee ne au pire des cas Mumbaay bi dañu koy tere léegi laajte bi est-ce que war na mën a samp estade bi ñu wàññi nombre de personnes yuy dugg ñu sorante takk seen i masques. mbër yi tamit bu ñu ñëw ñu wàññi ñi ñuy àndal rawante tamit CNG jël ci ay matukaay yu am solo waaye tamit bu ñu ko defee mën nañ ko def ci pay-per-view ndaxte loolu mën na nekk buuñaa ci promoteurs yi mbër yi waaye tamit làmb ju nara sàppi la ndaxte du saf xorom na mu war a safee du war a nekk làmb piir et dur kon daal fi mu nekk nii laaj bi samp na di xaar na nguur nan lay wax ci li mel